ñu ngi leen di nuyu yéen ni nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King dafa am jëmm ju baax ju ñuy wax Jaafar ibnu Isaabuuri Jaafar moomu nag dafa dëkkoon ak soxnaam waaye nag dafa toog ba mu yàgg mu daal di xamal soxnaam daan ko man dey diirub bi ñuy ànd lu yàgg ba tey dafa am tawat ju nekk ci man ma bëggoon nag tey ji ñu dem ànd ci ab sëriñ bu nekk fee mu xoolal ni ba xam tawat ji tawati lum doon waaye nag bi nu àggee ci ki nga xamante ne mooy buxaaba bi nga xamante ne moo leen waroon a xoolal ba xam tawat ji lu mu doon waaye nag bi mu leen xoolalee dafa leen dafa wax jaxfar daan ne ko yow day jinne moo la dugg moo la jàpp te mën naa koo dindi jaxfar daan ne ko lu ci pexe mu ne ko waaw mu daal di koy wax ne ko mën naa koo dindi waaye nag moom sëriñ bi dafa nekk di def ay débat débam ba nga xamante ne am na menn gan mu ñu xamante ne gis nañ ko muy jinne ji mu daal di koy wax ne ko des nga say débat déb day ba ma génn ci jaxfar mi waaye na nga xamante ne day comme jóge naa ci moom ci soxnaam sii dee ci laay fexee dugg te bis bu ma duggee ci moom day rey ko dong moo ma tax a jóg bi mu waxee loolu nag moom jaxfar daal di laaj ki nga xamante ne mooy bu xaal bi leen doon xoolal seeni mbir ba xam nu mu demee mu daal di koy wax daan ne ko moom jinne ji de dafa wax ne génn na ci yow de fexe nga ba tàggale ma ba ma tàggale leen waaye ne nga xam ne de ci sa soxna sii la jëm te bis bu ko jekkoo da koy faat jaxfar daat koy laaj daan ne ko léegi loolu lu ciy pexe sëriñ bi daan ne ko leen dong de moo ciy pexe na fexe ba waxtu julli bu ko rawati benn yoon feek mu ngi julli waxtu julli juróom rek moom rab wi muy jinne ji du ko mënal dara kon nag na ko fonk mu daal di koy wax soxna si soxna si daal di dem di góorgóorlu ci loolu kem kàttanam saa bu julli jotee day benn waxtu du ko tardé nga xamante ne diirub juróom-ñaari at yoo xamante ne soxna si Moustapha faat waxtu julli waaye nag dafa am benn bis Jaxfar daal di génn daal di dem di tukki bi mu demee ba mu yàgg am kenn koo xamante ne ñëw na daal di fëgg buntu kër Jaxfar bi mu fëggee soxna si daal di ubbi bi mu ubbee nag mu doon am màggat mu ñaaw daal di taxaw ci bunt bi soxna si daal koy laaj lu doonoon say tànk mu daal di koy xamal daan ne ko dey man day maay jinne ji nga xamante ne maa duggoon sa borom kër Jaxfar waaye nag na nga xamante ne man de topp naa la ba sonn diirub juróom-ñaari at yi waaye nag gis naa ne benn waxtu julli doo ko faat diirub juróom-ñaari at yi moo tax mënulu la da mënuluma la dara dama la doon wax rek nga daral sa xel te xam ne man ñetti fan moo ma dese ci kaw suuf ma faatu na xamante ne day man doonatuma ku la mënal dara bi mu ko waxee loolu daal di dem ñetti fan yi matee nag soxna si tàmbaliwaat di tàyyeel ci julli nga xamante ne fonkatul wenn waxtu na nga xamante ne moom la ko daan jullee defatu ko nga xam ne dafa tàmbaliwaat di tàyyeel ci jaamu yàlla lool ba jaxfar demee ba nga xamante ne moom jaxfar yëg na lool nag jaxfar daal di wax soxna si daan ne ko man day dinaa la wax dëgg tey gis nga day dara jotuma woon kee ñu demoon day nga xam ne moo ñu doon xool suñuy mbir naan dañuy génne ginne ji na nga xamante ne day loolu day man maa ko kompaloo woon ak moom ngir bëgg nga xamantene da ngay julli nga nga nga fonk julli waye nak ki nga xamantene mo fi ñewat tay ji di la wax ne moy jinn magatum jinne mi ne la day faatu man ma komplo wat ak mom dama jublu wat kom at yi yep ya ngi julli ma xol ba xam li ngay julli ngir lolé mo wala dem nga ba ak ragal yalla nek ci xol bi ngir yalla rek moo tax ngay julli waye nak dafa melni ngir yalla taxul ngay julli ragalon jinne ji rek moo tax ngay julli ta fekk na lolé lepp ma komplo won ak kee man nak dinaa la xamal lenn sama jaan wàcc na ci yow li ma la waroon digal lépp digal naa la ko li ci des nag sa digg sa borom la kon man na nga xam ne sama jaan wàcc na bi mu waxee lool nag soxna si ak ragal yàlla daal di nekk ci xolam mu tàmbaliwaat di góor góorgóorlu ci julli kem kàttan guddi ak bëccëg muy julli nga xamante ne da koy sellal wenn waxtu du ko raw nga xam ne mi ngi koy def ci anam ga gënee di ko jëf ngir yàlla waaye soxna soosu nag dund na juróom mbenn fukki at waaye nag dafa daal di faatu bi mu faatoo nag wax nañ ne Jaxfar tëdd na benn bis daal di gént moom soxna soosu mu daal di nekk foo xamante ne dafa sol yëre yu weex tàll nekk foo xamante ne dangay xool ba fa sa yam waaye moom soxna soosu mi koy xamal daan ne ko fii ma nekk day diiru li ma fi nekk man maa ngi ci sama jàmm te li ma ko may mooy ñàkk faat waxtu bi nga xamante ne moom laa ko daan moom laa daan def moom ma may lool kon nag doomu aadama bu nekk nay fonk julli juróom te di ko julli te waxtu wa di ko julli ngir yàlla te bum ko julli ngir ngistal wala ngir dara ñi ngi leen di wax ngeen wéy di abonne ci seen bi di King Taalib tey wax ngeen bës bés bi di aimé vidéo bi ñuy xam vidéo bi neex na leen te ngeen koy partagé jëre ngeen jëf